waaw euh, jóge nañ foofu nga xamante ni mooy ci course bi nga xamante ni moo amoon ci diggante près de trois ans yi ak près de deux ans yi waaye gis nañ kàddu yi nga xamante ni maître Souleymane Diagne wax na ko di kàddu yoo xam si kàddu yoo am solo la di kàddu yoo nga xamante ni cadre consigne yi nga xamante ne moom la doon joxe ci jockey yi di leen wax seen toogaay di leen wax seen dawalin di leen wax seen comportement ci course mu maître Souleymane Diagne mi nga xamante ne avocat la te moom su waxee loolu war na parce que ci loolu lay liggéey kon ñu koy félicité bu baax di ko ñaan yàlla yàlla defal ko jàmm waaye di félicité bu baax le colonel Babacar Mbagnick Fall ci ndam li nga xam si ne am na ko wax naa la colonel Mbagnick Fall moom day dundee course day dundal course yoo gis muy lingeer yeeg dammel yi Mon colonel Babacar Mbagnick Fall moo ko muy def ci élevage lu am solo di ku bax di jambar bëgg course bëgg fas te kenn déggul colonel Babacar Mbagnick Fall li def ñukay koy bu baax mom ak Issa waxna ni colonel Babacar Mbagnick Fall barki dem bi ni dem ci li nga xamante moy Grand Prix Toulouse bi fofu ci France gis nañ taxaway bu am solo bi colonel Babacar Mbagnick Fall def accompagner le président CNG course épique. waaye accompagner logistique course épique. yépp

di ñetti promoteurs yi nga xamante gis nañ course yi nga xamante ni ñu ngi koy tëgg ñu ngi ñaan ñu tëggaat ko ñooñu buñ amaatoon yeneen juróom yu mel ni ñoom kun course dina dox ñu leen di félicité bu baax di leen ñaanal bu baax waaye di wax sponsor yi xam nga émission jabal émission la boo xamante émission qualité la képp ku nga xamante ni yor nga sa sa marchandise mbaa nga yor sa société mu bëgg a dox émission jaabal tàll na la loxo muy soit que Taïf Wind Service bu Omar Bao tamit ñu ngi koy tàllal loxo waaye équipe bergerie équipe maxtum bu Sidi Ndaw tamit ñu ngi koy tàllal loxo waaye waaye welcome un call partenariat ak LONASE ñu ngi leen di woo ñu ngi leen di woo Papis Niang moom ko ñoom ñëpp ñu ngi leen di ak képp koo xamante ni yor nga sa marchandise yoon nga sa société émission jaabal mi ngi lay teg loxo yàlla yàlla def jàmm waaye buñ fa jugee dañuy daal di dem ci li nga xamante ni mooy crack adulte yi euh, groupe 3 bi. ak ak ak ak euh, naar ñu dem seetaan ko bu ko defee ñu dikkat seen plateau ak seen doom ko samay peex. jërëjëf Cheikh Wade groupe 3 bi jóg nañu ñoom ñëpp jógandoo nañu maa ngi seen émission maa ngi seen ki nga xamante ni mooy Mama Diop ak Raxu ak gaawaan tonton Basirou Maay la bos nga xamante ni moo ñëw moom mooy Diza Ablaye Kase moo ko war mu ngi koy delloo. Malick la boos a ngi xaar tu bëgg a dem Soudé ni ko teel na atu dem ba sekk Mbaye mu ngi jàpp wante nga xamante ni je passe bien moo jiital fas yi moom ak zone la wante a moom moo génn Diza moom moo génn day jàpp rek ki nga xamante ni moom moo ko war mooy Ablaye kase deuxième position ki nga xamante ni moom moo fa ne moom mooy Raxu troisième position Talibé Diaksaaw 2 atu dem ba Seck Mbaye moom mu ngi jàpp Malick la boos mu ngi jàpp. ànd ak Dadi ak Mbay Babacar ak Damel Amari Ngoone Sobel sant yàlla Elisio gaawaan Tarnawa tonto Basiru wante Diza moom moo génn doomu Grand Royal la Setu Moraes Kaldunoves Kaldun Karo Fortino deuxième position Raxu mom domo Constantinople la Xaadim Mbooj moko indi Cheikh wat jërëjëf la Tolmas fas bi génn moy ki nga xam ne moo di déjà deuxième position nek raxu troisième position maa ngi seen ki nga xam ne moo Le Boss waye atu dem sek mbay dawal nañ ko mu djégé ci ba léegi ba atu dem Seck dawal nañ ko mu djégé ci waye raxu nga war deuxième position bi ba tay ki nga xam ne moo modi nga xam ne moo di déjà mi ngi non toj tournant 200 mètres bi bu ñëwé day dellu Las Palmas ba léegi déjà mo génn deuxième position nek raxu troisième position nekk ci diggante ki nga xam ne moo di Malick la boos ak ki nga xamante ne si moo di ki nga xam ne moo di tonton Bachir jërëjëf ñëwee dañuy dellu disan gi di morom ba geeturu omam wante raxu lu mu waxi ki nga xamante ni moom mooy tarnawa suul ko lu tarnawa waxi mbay Babacar suul ko loxo tey dina dem gémmeñ maa ngi seen favori bi sama xel dem na ci moo sàmb borom cool borom ndeer borom mbëng-mbëng séeri bébé nday ni moo génn moom mooy disa sama xel dem na si borom Pambal àggale kii tiir taalibe sëñ Abdou Abdou Lahat Fall ndeysaan ba léegi nga xamante ni moo génn mooy Diza wante dawal na favori bi moom mooy Elisio dawal na nañu Elisio wante Diza ba léegi lim jàpp bàyyiwu ko dawal nañu sant yàlla dawal nañu Malick Labos laa ilaha illallah laa ilaha illallah dawal nañu Mbaye Babacar dawal ëttu Demba Seck Mbaye dawal gaawaan wante ba léegi Elisio moom moo génn elisio domu honor and bliss le ije sonor ken markalamun kalamun zedan sama xel dem ci pap jara mécanicien bu mag bi ak nga xamanteni moy bay Fall ndesan wante ba leg elisio mo genn mom nak chaque dimanche ni lay def man na ni groupe bi catégorie bi mom moy sen khalifa Cheikh wad elisio ngi ni di ñew mbokku bay El Capo borom Grand Prix chef de l'État 2022 Elisio ngi ni di ñew ngañ mu ndaw moko war Latir Mass émission mi ngi ñëw doomu Honor and Greed la mbokkum Baye El Capo bu Omar Bawa Junior waaye deuxième position nekk nga xamante ni moo di Gawane troisième position nekk sant yàlla émission émission yi ngi noonu di ñëw première émission deuxième numéro 11 Gawane troisième la numéro 2 nekk na loo xamante ni course bu bi nekk Gawane tamit. Nek ben mal de quatre ans boo bu ku jara baye xel la Mbaye Diène jalla moom moko war nonu dal di nuyu bu baakha a baax atile mbay Kara Zal borom mbusi di nuyu Siku Arona ak Modou sama gaay yu baax yoyu ak nga xamanteni mom moy jibi mécanicien bi waye Baye Fall nek ja porte Pambal agriculture waaw seigne abdoulat Fall borom Medina Fall momit mang koy nuyu. minhuma moom la leen wan noonu mboose ko indi ak tàngaade bi kii moo ànd ak Cotonou 2 nee la kii moo ànd ak nga xamante ni moom mooy Auguste kii moo ànd ak Ngoye Latir kii moo ànd ak Teeñ doomu toi et la surtout Bambek Yacine yaay very good yaay sungu fës njël yaay yaa ñuy moom doomu pasteur bir mbokku bàyyi Daara Salaam ak Maguette Diop a ngi noonu mu may sa Sele Ndiaye borom Ngoye Latir ñoo yàgg supporté équipe réew mi dégg nga li ñuy wax doo xool xanaa da ngaa dox kon Babacar ma am nañ xool ndey Fama Der mooy ñëw na le ànd ak ndam bi ak le abul mbokk bàyyi ti Anta Ndiaye il sa ndam professeur Sakhir Thiam ndam li Siaman Force bul Air Force Esri Peken Red Drum Som Roberto Xeltorosa tournuto Real Stade Ñerko Foros ndeysaan yaay mooy Kimbis Diaw ndeysaan rakku expert bi moo nekk noonu Babacar Mar bi bi Habib Elisif City Elisif Kalti Gonwes deux sorties la def def deux victoires door dooraat dem noppalu ñëwaat siis Jamra Aliou Bouraax moo ko yor noonu ndeysaan entraîneur bu mag la moom Aliou Bouraax indi na dara si réew mi indi Adja Kola Fall ci réew mi Lat Fatima ngi noonu nekk ngëlamu daa jébbu li nga xamante ni moom mooy ñeenti tànk moom lañ leen di wan noonu la numéro 5 Lat Fatim Anta Ndiaye. mbokku baay expert comptable mbokku baayu fas yi ki ko moomoon nag moo raw clair yi muy Jaw フフフ。 Khadija 2014 Khadija doomu Salma la ak nga xaman Salma moom mooy yaayam ak pesant d'or wante tey ah fas wi tamit raw na Grand Prix moom it ñëw na tawféex lii bariwul lu muy am Cheikh Wade ay gara Grand Prix moom it war na waaye kii mel ni moo war Zarak. say changé nañ jokkee parce que moom mu barak la doon war kon tey kon ñu warloo ko Zarak kon di dinañ ñëw léegi ci nga xamante ni mooy jokkee mu barak nam léegi nii kii tamit raw na grand prix chef de l'état nday faama der dafa génn gaa yi woote say woote ñëwal fii tribune bi yëpp nañ Babacar Mar kenoo di def musiba jóg nanu wure ba dem na kang waxe mag dem da taaliba ak war mbaam jóg nanu jóg nanu jóg nanu Lat Fatim ñëw na ànd ak Moubarak Lat Fatim Anta Ndiaye moo génn mu benn Moubarak moo génn Moubarak génn na mu mel ni Demba Cissé moo war deuxième position nga xamanteni Mubarak. troisième position Arafat wante mu melni Fama Der mo Moubarak King Charlemagne la King Charlemagne Nouriev Nozon Dancer. deuxième position Lat Fatim Siaman Force Bull Air Force Esri Pekin Red Ramsom Roberto Khaltorosan Tournuto, saint Sanzinier troisième position Arafat soyda minu jon ko warsada zol no zone danseur taw feex moo jaar ci aras bi ou bien nday fama der Habibi Habib Elisif City Elisif Galti Gone West Zarak moo jiital fas yi Lat Fatim génn na Cheikh Wade. jërëjëf Las Palmas Lat Fatim Anta Ndiaye génn na njëleemuloo ndeysaan teel naa génn teel nañoo sax seen i caravage ak Moubarak troisième position mi noonu di ñëw te tournal basket bi ndeysaan waaye Lat Fatim Anta Ndiaye ba léegi moo génn Lat Fatim Anta Ndiaye ba léegi moo génn waaye ka xam ne moo di Moubarak bàyyi ko benn yoon Tawfekh maa ngi doon di ko seen troisième position maa ngi seen Jamra maa ngi seen ki nga xamante ni si moo di Moubarak mu ne en deuxième position sëkkatal ki a xamante ni moo di Lat Fatim Anta Ndiaye mayu ko dara ñi ngi noon tournal 200 mètres bi kabar wut fi nga xamante ni si moo di seen TV buy ñëwee dañuy dellu Las Palmas jërëjëf Cheikh Wade moom ñaay la ñuy def rek Lat Fatim ma nii di ma mu ngi nii di romb di neex soos borom son yi Pape Demba Cissé moo war mu mu ngi gëstu rek ñaari fas yi ñoo na ci kanam taw feex ñëw na troisième position Lang ak Arafat Ndeye Fama Der ñëw na cinquième position c'est le fils de Habibi Habibi dawal nanu la Médina bu Baara Seen moo jëy moo ko war doomu Keba Jëy animateur maa ngi seen Jamra seen Aminou Ouma seen ki nga xamante ne si moom may façon noonu nga ma am ni may Aminou Ouma ak Jamra wante Moubarak génnaat na jàpp na Lat Fatim Tidiane moo koy indi Moubarak King Sarlemagne Nouriev Nozon Danseur dawal na nanu Ndeye Fama Der dawal nanu Arafat dawal nanu Tawféex dawal nanu Tawféex barak moo génn ba léegi Cheikh Wade nag remplacé na ki nga xam ne moo di Lat Fatim deuxième position nekk Tawfekh troisième position nekk Ndeye Fama Der quatrième position nekk Lat Fatim Anda Ndiaye waaye dawal nañu dawal nañ Der mu jege si dawal dawal Tawfekh dawal Moubarak waaye ba léegi ki nga xam ne moo ne ci kanam moo di moo di Moubarak Ndeye Fama Der génn deuxième position nekk ki nga xam ne si moo di moo di Tawfekh Las Palmas laa ilaha illallah loxo dem na gémmeñ tey diggante Tawfekh ak Ndeye Fama Der 200 mètres bi dina métti Ndeye nday faama deer doomu xabibi xabibi nday faama deer boo écrit réuni deuxième position taw féex xëccoo rek la mën taw féex ñaari fas yi seen 200 mètres dina métti taw féex nday faama deer taw féex nday faama deer taw féex Omar Bawa Junior première taw féex deuxième nday faama deer troisième Moubarak xëccoo rek lay def moom taw féex dégg naa ñu nit te gis naa tamit ne ko tawfeex ku mu sa nii ni la tàpp lay raw moo tax boo xoolee dañoo turé ci 200 mètres bi nday faama der ñëw ci bi boy bi dem ci aras bi ba mu neex ko mu ñëw ko taj waa xoolal Cheikh Bey xoolal Cheikh Bey ndeysaan nee na day raw 5 Grand Prix nee na moo ko waxoon de san doomu nday Amar Baawo si ñor barke Rasul kooku mooy Cheikh Bey ñëpp a ko ràññee Cheikh Bey borom revue de presse bi ndeysaan teer bu mag kooku mooy Cheikh Bébé Yékini Lamb Fall kasaak bu rafet moo ko ñëw ndeysaan loolu wóor na rob bu rafet moo ko ñëw loolu lu am la waaye ndeysaan waaye tawfeex a ngi noonu di ñëw Babacar Mar Lamb Fall a ngi noonu ànd ak ki nga xam ne moo di Jamra tawfeex ànd ak Abdourahim ndeysaan ànd ak Anta Ndiaye liggéey bu rëy bi loolu la ko eh, Abdoul Farim tey sama rakk moo ko war waaw Ibrahima Sow liggéey si liggéey bu rëy mu parek maa ngi yow dañuy ànd naa ne café Touba ndeysaan mu ni ko man café rek laa bëgg ndeysaan café ak nan ko café segg boo xam ne tuuti jar. waaye waaye waaye Xalifa Thiaw moo moo koy moo segg. waaye ki nga xam ne dafa ñëw ëpp leen tawféex. Xalifa a ngi nii. borom tawféex la. ngi noonu ndeysaan. ak a gaaw ci jooy nag tam jooy. Babacar Maar tawféex a ngi noonu raw na première waaw Khalifa Thiaw xamoon naa ne dana jooy dafa gaaw ci jooy dafa gaaw ci jooy kii moo entraîné capitaine Thomas Sankara raw Grand bu ne waaye kii mooy lan lan Mourinho ñu naan ko Thomas Tuchel al naan alhamdulilah bi alamin ndeysaan nekk na loo xam ne lu rëy la nan dem jëli Cheikh Bey wala ñu jëli wax sant yàlla parce que fas yi liggéey nañ ci xam ne xam nañ ne bu ànd ak ndogalu yàlla kenn mënu ko raw ñun loolu leer nañ parce gis nañ ko mu def yow yaa ngi ci temps foofu cinq cinquante sept def quatre plus yi naaw dañuy ñëw bi ñëw dañu la sooka bi tey bu ñu rawee fas yi raw mais fas yi kenn ko raw luy jaar ci suuf yor ñeent ko raw kon looy bu baax a baax xam ne sama adversaire vraiment daw na mais suñu fas vraiment dëgg gi ko indi moo dul caaxaan xam xam nañ ku ñëw ci moom da koy dàq te bu ngeen ñëw ci décembre numéro gën leen. félicitation la alhamdulilah a gis na yaa yor fas bi sonn ci fas bi yor ko 200 yor ko 300. tey loo gis ne moom nga rawantee ba raw ba bilaay gëm sama bopp rek ma ñëwee damay dama leen di jàpp man ma raw ñaari yoon ma raw la fukki yoon ah. barki yàlla billaay wallaay taalaay. doomu sa doomu ndey na xaar tuuti waaw loolu la demee moom sama waay la moom moom maa ngi moom ñoo dend benn curi. waaw moom moom day waaw waaw. waaw kañ ngay ñëw si réew waaw weeru koor laa xaar weeru koor bi. ñu ngi sant yàlla Ba du nuyu Omar du nuyu Igir Lamba Fall gi yëpp ñun waxambaane bukki lañ. ñun ku ñu dàq sa gétt bu nelaw ndax wiri wiri jaar ndaare awar baaw ñi ngi lay may victoire yaak aaram baaw di ko may igir lam faal gi yëpp yëpp bawuma ma kenn di leen ko may yéen ñi yéen ñi ñi ngi leen di di leen kontaane ñi ngi dem nak ñi ngi ñëwaat inshallah inshallah papa ma taxaw ak nga xam ne mooy Ibrahima saw ki laa doon wax sama rak la jaarul mbaaw te gis nga ko tay mo war a Fatim def lu lay ray mo mo rawante rawante bi yëpp ba taw feex rey Ibrahima di lay wax ni li la nuyu nga nuyu sa supporters yi la ak sa fans yi li xamante ni nga wax ñu ko mooy nan rawante. waa maa ngi sant yàlla julli si yeneen de sant samay ñaari waajur waaw rawante bi lenn kese la dañ maa ne boo jógee door ko mu génn yemale ci ci Moubarak te loolu laa liggéey parce que li mu liggéey jodi man gis naa ko xam naa ne mun naa daw te dama xam naa ne bu ma yemalee si moom incha allahu rabbi suñu waa kër dinañ mën a ñëw. waaw loolu laa rawante. waaw mais tawfeex tamit nan nga ko préparé ba yow nga jël sa fas ak dóor mu génn yemale ku ñëw nga rek mu seddu ko ba tawfeex ñëw raw. waaw loolu lenn kese la dañoo déggoo suñu biir rek parce que ba ma jógee dóor ko mu génn bañ laalee digital ma lat eh, mu barak ba mu génnee après mbay jën ba mu ñëwee ba ci man damaa yuux ma ubbil ko bàyyi ko dem. après ma toogaat. ñëw ba si yow ni la bàyyi ma ma dem. waaw mu ubbi ko nga mu dem. voilà ah. looloo indi rawante bi. kon victoire bi koo koy may. maa ngi koy may ki nga xam ne mooy sama doomu nday Ahmed. sa doomu Ahmed Ahmed ñëwal nii. Ahmed maa ngi koy may kii mooy na mu ngi koy may ak kan. maa ngi koy may di la ko may ah, di ko may samay waajur di ko may waa ñaag yëpp képp ki si Lamba Fall maa ngi la koy may. analyse naaru góor sa analyse la la bëgg a suuf bukki boko daxé sa gette bul nelaw xamal ni dina ñëwaat gis nga Omar Ba Junior xolam la ko Yalla fay ci fas yi course bi ku yaakaar man nga ci seppi loxom ba mu set nga sànni ko jëbiti biti nax sa bopp Omar Cheikh Mamadou Mountakha da ko ñaanal ay waajuram ñaanal ko may bokkole Baawo ay waajuram wu góor nekkon ci naaru góor yi ñaanal ko ci professeur Baawo mi nga xamanteni ni ko yar ci naaru góor yi ñaanal ko ci ku yaakaar man nga xey jël Omar Baawo yërëb loxoom ci course yi ba mu seen wicci teg ko ne yaa ngi nax sa bopp kenn mënu ko Fara force de leen di raw naaru góor nag daw nañ xëy yu neex gis nga taw feex taw feex benn fas du ko fi raw ñaari dimanche loolu mënul am ku ko fi raw dimanche tey jii bu dimanche bi dee see aal ko karawaas